internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim yi ñuy bàyyi xel ci sene info net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey lundi di 25 avril 2022 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. dëmb ci dimanche bi ñaari accident yu métti ñoo am ca Fatick fi ñuy wax euh, Tataguine ñu ne nag benn bi ab camion la boo xam ne kon moom mbëkkante ab ak 4 x ba sax am lu toll juróomi nit yoo xam ne kon ñoo nekkoon si biir 4 ba dañoo ñàkk seen bakkan beneen bi it ñu ne ab oto la boo xam ne moom dafa këppu yeboon lu toll si juróomi nit ñaari nit ñàkk seen bakkan mu amit benn nit boo xam ne dañ koy yóbboon hôpital régional bu Fatick moom it mu mujje ñàkk bakkanam population bu Sénégal mu ngi woy di yokk bu ñu sukkandikoo ci dernier rapport bi nga xam ne agence nationale de la statistique et de la démographie muy waa ANSD ñoom ñoo ko génne nee nañ daal jóge nañ ci seize virgule sept million d' dem ci dix sept virgule deux million d' habitants ñu ne nag buñ ko xayma euh, war nañ yokk ci lu toll ci cinq cent mille personnes bu dee nag région bu Dakar ba fi mu toll kon moom moo ëppale ay nit ndax nee nañ moom rek am na lu toll si quatre millions euh, d' habitants ki ca topp moom mooy Thiès mi nga xam ne euh, am na lu ëpp ñaari millions ci ay habitants région de Diourbel moo ca topp moom it am na lu jege ñaari millions. ci ay doomu aadama Oumar Youm nekkoon fi ministre des infrastructures et des transports terrestres et du désenclavement euh, moom nag gannaaw bi nga xamee ne kon euh, démb dañ doon amal ab ndaje ñoom wa ay leaderu APR foofu la ca Mbour moom nag xamle na ne ki nga xam ne daal mooy président Macky Sall fi mu nekk nii mu ngi si mu ngi si mandat bu mujj moom daal dafa jàpp ne kon ñaareelu mandat bi mooy mandaa bu mujj bu président Macky Sall ba tax ba tax sax kon mu ne ay ñoñam fi mu nekk nii daal nañu liggéey jàppale ko président Macky bu baax a baax ngir daal mu mën a am li nga xam ne moom mooy majorité bu confortable le ci assemblée nationale ngir mandat bi nga xam ne kon mooy bu mujjam mu mun koo jeexal ci jàmm. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ca euh, Nigéria foofu nag euh, ab raffinerie clandestine boo xam ne daal kon dafa explosé euh, moo fa am ba sax lu toll si cent dix personnes ñàkk fa seen bakkan mu ngi amee nag ci région pétrolière bi nga bi nga xam ne kon mu ngi nekk ci delta bu fi ñuy wax Niger loolu nag ñu ne mu ngi am vendredi ci soir kon vendredi ci guddi ga la wala boog ca ngoon sax ca sax fi ñuy wax état bu rive diggam ak fi ñuy wax euh, imo ki nga xam ne nag mooy njiitu réew ma di Muhammadu Buhari moom nag génn na àddu jëmale ci mbir mu day waar moomu te sax mu ngi wax daal ne ñi nga xam ne ñooy euh, raffinerie clandestine nii muy daal ay bërëb yoo xam ne dañ fay toggee lii di pétrole beek yi ni mel te sax ñoom nekkuñu ci yoon mu ne loolu ñoo mu ne daal bërëb yooyu nañ leen xeex bu baax a baax a baax xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy réew réewum France démb nag euh, ca lañ doon amal ñaareelu tour bu élection présidentielle ba ka nga xam ne nag euh, moom moo fa nekkoon euh, président di Emmanuel Macron moom la ñu falaat moo am sax lu toll ci cinquante huit virgule deux pour cent ca baat ya ki nga xam ne nag mooy Marine Le Pen topp ci moom mu ngi am quarante deux virgule huit pour cent ci li nga xam ne kon moom mooy bulletin ya dañ koy jeexal xibaar sport euh, réewum Sénégal nag euh, gannaaw bi nga xamee ne fi mu nekk nii kon euh, def nañ tirage au sort ba ñu xam ci poule bi nga xam ne kon. ca la nekk ngir éliminatoire yu coupe d' afrique des nations bu 2023 bi nga xam ne mu ngi war a amee fële ca Côte d'Ivoire fi mu nekk nii nag xam nañ suñu première match bi kan lañ ko war a euh, football ñu ngi ko war a amal kon le 3 juin suñu diggante ak Bénin te sax dinañ ko amal fële ca stade Abdoulaye Wade bu jàmm ñaajo leen leen loonu tey ci ay xibaar daful seen teewlu dinañ jox dañu ëllëg jaa ngeen jëf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 yéex naa ñëw.